kuréel gi nga xam ni ñooy saytu wàllu weer wi te nekk ci mbooloo moomu ñuy wax coordination des musulmans du Sénégal ñoo leen di bëgg a leeral tey jii ci samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent di diggu tabaski ñu koy wax dul qaada ci atum ñaari junni ak ñeent téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent mu dëppoog fukki fan ak benn ci weer wi ñu nekk di weeru août 2018 euh, commission linéaire bi nga xam ni moo topp coordination missionnaire du Sénégal tey jii le 29 séentu nañu weer wi fii ci biir réew mi ak ci bitim réew sax na ni réew ma lañuy ñuy wax Arabie Saoudi euh, gis nañ fa weer wi gisin wu wér ba seen tribunal ba déclaré na ni tey jii gis nañ weer wi kon suba di dimanche di fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu nekk di weeru août 2018 mooy bis bi njëkk ci weeru tabaski le 12 août 2018 mooy bis bi njëkk ci weeru tabaski di suba dimanche kon altine ñaar fukki fan ci weeru août mooy nekk bisu arafa di bis bu am solo ci jullit ñi bu ko defee talaata ñaar fukki fan ak benn mooy nekk bisu tabaski euh, ci loolu nag ñi ngi leen di leeral tey jii moo nekkoon suñu ñaar fukki fan ak juróom-ñett waaye xibaar bu wér ni ñu leen ko waxee ci Arabie Saoudi dab ñu ñi tey moom mooy seen eh, ñaar fukki fan ak juróom-ñeent séentu nañ weer wi gis nañ ko te réerewu leen mbir ni ñun fépp foo xam ni ci àdduna bi ak fu mu mën a doon suñ fa amee xibaar bu wér kon ni ñu ko lislaam sante dañ ciy tënku euh, ñu ciy leeral rek xam ni kon niñ leen ko waxee léegi-léegi am ay nit ñoo xam ni duñ gëstu wala duñ xam nu mu demee defe ni ñun dañuy topp Arabie Saoudi rek te ku xool at yi weesu léegi-léegi ñu gis ñu ànd ak ñoom léegi-léegi ñu wuuteek ñoom kon ñun dëgg rek lañuy seet ak fu ñu ko mën a amee rek loola lañuy ñuy daal di àndal kon daal loolu mooy nekk li nga xam ni moom lañ leen doon leeral di ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala mu nangul ñu suñuy jëf yu baax te fulal ñu ko bépp njuumte boo xam ni tukkee na ci ñun moo xam wax la wala jëf mu jéggal ñu ko